euh, bon nga ne on des communicants ça peut être un mot arrangé arrangé une façon de calmer euh, pour le moment euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy les les les citoyens en tout cas la mesure a été très applaudie mm-hmm. euh, par ces par ces citoyens là bien que euh, ça fait pousser des cheveux blancs aux aux investisseurs et puis ñi nga xam le monde de l'économie et du foncier aussi ñooñu ils sont ils sont ils inquiets relativiser loolu parce que mm. pourquoi man la gis naa ay groupe bu yu doon kaas. yu jaaxle naan liggéeyu ñu fan yi kon ñooy ay citoyen lañu. te xëy na sax am na ñi nga xam ne xëy ñu fi toog c'est loo gis rek nañ xool à l'application quelles seront les conséquences. quest que ça donne mais parce que affaire bi dafa dafa complexe trop. Mm-hmm. Euh, xalaat nga ne le gouvernement mën na dem au bout de la logique bi sénégalais yi foog ne. Euh, foofu la foofu foofu la jëm et quelles en les conséquences bu fekkee ne euh, tout comme Abdoulaye Wade et Macky Sall ce gouvernement la ne réussissait pas à aller au bout de sa logique parce que le Sénégal quand même est un état de droit mm-hmm. <laughs> mun euh, et puis la, la protection des investisseurs est assurée moo tax man la dina jafe pour que le gouvernement mën a en tout cas ni mu ko bëgg a defee nii yaakaaruma dina mën a sotti ñàkkul nag njort naa ko bu baax am na ci loolu di teguwul ci yoon xalaat naa ni que loola teguwul ci yoon gouvernement bi dina ko jéem a jubbante nu mu koy jubbante kooku moo xam lu muy toje bopp dina xam dëgg dëkk parce que loolu aussi responsabilité gouvernement bi la euh, ndaxte kenn mënut a gëmu ci gëmm sa aussi ci lépp mais loolu xëy na ñoom ñoom ñoo bañ a wax ko waxal seen bopp de ci seen commune dañ ne au cas par cas mooy dañuy xool mbir yi di ko càmbal bu nekk xool la ca nekk ak la ca nekkut kon xëy dañ gis la ca la ca jàkk ak la ca jagul lenn nag laay bañ ak loolu laay ragal hmm. ñu euh, nangul lañ ci paate jox ko Demba bu ñu nangu yëfi jàmm di ko jox beneen sénégalais. déshabiller Paul pour habiller Jean. waaw xam nga yooyu yëpp aussi mën na ci nekk. wala aussi comme au cas par cas nga woo benn investisseur gisanteeg moom xëy na ngeen am nu ngeen def nga bàyyi ko keneen ki gisanteeg moom xam nga yooyu yëpp dafa mën a am donc donc retour de bâton mën naa non mais moo tax man la que il faut aussi mu nekk dans la transparence xam nga tey mënoo dikk boo jëlee le communiqué de la direction générale des impôts et domaines mais déjà y a c'est nébuleux dañuy wax ne une commission la commission ad hoc commission ad hoc néewu leen commission ad hoc fii lañ ko logé xam nga direction générale des impôts la wala ministère de l'urbanisme wala cabinet primature wala cabinet président la république kenn néewul kan moo koy composé tu prends une mesure ki ko war a appliquer créer gulo infrastructure bi ko war a appliquer kañ nga koy créer xam nga yooyu yëpp aussi dafay indi lëndëm ci xelu nit ñi on se dit est-ce que aussi euh, lii premier ministre jëlu ko teel ko boppam di ko lijjanti au cas par cas même yaa en entendu des gens craindre des règlements de compte xam nga nii kenn mu leen tere xalaat surtout que bu état bi defee la nga xam ne que mën nañ ci on peut trouver à redire te loolu moo ci am mois je suis pour la transparence absolue maa ngi koy bamtuwaat man bokk naa ci ñi nga ni sawar naa ci ñu ubbi enquête de façon exhaustive ku ne nga wane li nga yor ak noo ko amee foncier ñoom ñi nga xam ne ñoo yore fu dañ fa lañ doon liggéey xam nañ suuf yi fu mu nekk ak fu kuñ ko joxe ak kañ lañ ko joxe ba sa directeur des domaines sax ci ñoom la bokk kon dara mun leen fi ump bu ñu bëggee seet mbiru suuf moom dara mun leen fi ump président république na tey mbuurkat am na lu mu fa gis lu ko yéem mais que effectivement xam na la muy seeti foofu donc aussi euh, pour man dal du yomb mais xëy na buñ ko defee ci sago def ko ci dal jàpp naa ne que war naa man a bañ a problème xam nga man lan laa xalaatoon sax ñu def ko. Hmm. pour bañ a léser kenn. xam nga yoo xamoo ku baax ku baaxlewul pourquoi ngay arrêté ay chantier jàmbur kon. mun nañ instruire. moo nga dikk jox DSCOS ni commencé fii nga woo ñi semaine prochaine nga woo ñi ñi nga xam ne woowoo leen ñi ngi liggéey. ñu justifier de la légalité bu ñu fekkee légalité lu ñu deful kiwul nga di ko arrêté ko. et pourquoi nga xëy benn bi sax nga tu arrêtes tout le monde pour moi il faut de l'intelligence aussi dans la mise en œuvre dara terewul nga di leen écouter defal leen ma une enquête exhaustive propriété la ngeen woo diw euh, secteur bi ñu justifier du tere ñeneen ñuy liggéey. Mm-hmm. bu ñooñu paree ña ca légal continuer seen liggéey ña ca nga xam noo def ak ñoom jël beneen secteur mais doo xi arrêté ndoo ñoo ñëpp parce que arrêté ñoo ñëpp bi encore une fois impact économique et sociale bi bu buñ ko bàyyi xel buñ ko fàtte te dafa am solo ci réew mi fi réew mi dafa toll fa nga xamee ne fi ñu toll nii amul wërta benn perte benn dërëm. warut a perte dara la nga xamee ne que activité économique la. mais. Euh,